ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. والقلم وما يسطرون bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun alawliya min kulli umam kadalika alsaalihun wa ibadullahi fi kulli xiin wala siyama fi xiin wa sidda kon ginnaaw moo doon yoon woo xam ne mooy sunnas ñi ñu fi jiitu woon te mooy su jamono demee ba tëju su jafe-jafe demee ba am ñu daw làqu ji ci gaañu baax ñañ jamononteel ndax loolu daa doonul warteeful jullit aha kay waajib la ndax yàlla moo wax ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma moo waxit ne wabtaqu ilayhi wasila na ngeen wut wasila dinañ ci dikk ci ni ko ahlu sunna waxee niñ ko leerale ci anwaa yi nga xam ne moom lañ teg ci téere yu bari nag def nañ loolu ñu ne mooy jaam bi wut fu mu buy ñaan boromam lu mu jiital mi ngi mel ni sooy taal bant bu mag dangay jël as mboob jiital kos teg ca ngir mu taal bant bu mag ba kon nit war naa am lu mu doxale digganteem ak boromam ba bu soxlaa bu ne yàlla ana nga mu ne ko maa nii su fekkee dañoo jël istilaax bi mooy al istisfaau bi kamalillahi wa tawxidi ilallahi tabaraka wa taala lisaatihi sàkkoo tinu ci jëmmi sunu borom ja ci jox yàlla ak cëram ci tawxiid wéetal yàlla jaam bi idyaan bi sababil muusil ilal madlub noonu lañ définir baat bi mooy nga dikkee def loo xam ne daf lay tax soxla si nga bëgg sa diggante ak sa boroom mu am mu yomb la mu yomb la moo tax nga bëgg nga gis nit bu ñëwee ci ñëw di laaj ah yaay doomi diw yow de nangam ki nangam ki nangam waaye du tëb ne la jox ma nangam la nangam laa bëgg loolu kenn du ko def su dee ci kilifa gu baax da ngay ñëw ziyaar ko toog nuyu ko maslaak moom ba noppi soog a gaaral sa yitte dafa mel ni nag ni ngay defee pexe pour dem ca moom xam kër ga wala oto ba la yóbbu wala nga am paas bu la yóbbu daa mel ni buñ ko doon misaal ci njàngale dëgg-dëgg mën nañu wax ne loolu ci xeeti wasila yi la bokk pour dem ci sa borom pour sa ñaan dem ci yàlla pour sa ñaan àgg ci yàlla wati xaasul wasil allati tuusilul abda ila maqsudihi noonu la ko boroom xam-xam yi waxe rawatina bun baas boroom xam-xam bu mag la woon mu wax ne kon wa fii dawaabiti char am na kayfiya soo koy defee danga koy tëral ci ni ko sariya jàngale moo tax léeg-léeg nga gis koy ñaan ñaane noo xam ne yow soo ko dégloo da naan ah kii de nim ñaanee dafa mel ni dafa teggi noonu tewut ak yàlla moo tax lu ci ne xam nga am solo lool ku ne bëgg na soo ne yàlla dama lay ñaan tàllal say loxo yàlla ne la loo bëgg ma defal la ko waaye ñaan ku ne xam na ne mooy ngànnaayal jullit waaye yonent bu mas am xat-xat ba ñaan képp sës ci day daal di tàllal ay loxoom yàlla rek nag ne ko yàlla maa ngi nii kon foofu lañu toll fi mu ne ci jamono bi Moussa toll na fa Nuuxin toll na fa sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ca Badar bam naan yàlla kuréel bii màkk nii ak kuréel su néew sii bu leen seetaan mukk nu nuy jeexal ndax kon kenn dootu jaamoot yàlla sa diine ji dafay jeex waaye daal di wax saxaabatul kiram ne leen bu leen attaqué tànk joxuma leen digal tibb suuf nganam nganam xëpp yàgg na fi de ñaani suuf yi mag ñu baax ni def nii ak ko fee yàgg ak ko fee yàgg ci la bokk daf cee bokk kenn du ko ber ci biir dina la bokk yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen adduwaaw silaaxul mu'min wa hiya bi mansilati taa amrun minallahi tabaraka wa taala ndax dañ ne fi'lul amr ida kaana samawi ilzami ñaan kon nañ leen góorgóorlu ci ñaan mu am ay siixa yu bare bare bare bare waaye suñ dégloo ibnu malik mu nuy nettali benn bés nii tey jii su fekkoon mooy jàkk yonent yàlla muhammad ca a munawwar yonent bi dafa nekk ci minbar bi nii Cheikh Mamadou Basir di def yéeg di xutba benn waaye ne ñokke jóg jàkkaarloog yonent bi daan ne ko halakatil amwaal wan xataati sub subul wan xataati subul <laughs> waa ju am solo ne ko alal ji yàqu na yoon yi dog na mooy problème am na fi mu ne nii koo gis ma nga takk kanamam koo gis dafay diw loxoom am na noonu su mbooloo dikkee boo leen gisee da nga leen di daw wala doo bëgg a jaxasoo ñoom kon jafe-jafe am na képp kuy waaju baax walla ku am lu baax wala ku yaakaar ne soo ñaanee suñu borom nangu ñaanal na def tawasul ci suñu borom am na nag yuñ ci gën a taamu te noonu la ko sunna waxee kon bi mu ko waxee yonent bi sallallahu daal di yëkkatil ñaari loxo ya xam ne nitu diine loolu lay jariñ mooy da nga fi nekk yërmande suñu borom yaakaar yi jaam ñi di yaakaar su nekkul ci yow yàlla mën naa bañ a tas yaakaar yooyu moo tax su su ngeen gisee nit ku baax dee leen ko ñaanloo dee leen ko ñaanloo yooyu yépp ci tawasul ci xeeti tawasul la min anwaai tawasul yi asitta yi nga xam ne insha allah sa naati bi ñaanal sëriñ bi wala bul nu fàtte ci ñaan mu ñaan waaye topp yitte yi àdduna topp yitte yi àdduna ba jël say loxo ñaan sax doo ko def jàpp nga ne lu ne da nga koy dox rek lijjanti ji ko ako baax ñaan rawatina waa ju baax dee leen ziyaare gaa yu baax yi dee leen leen jox seen i addiya ndax yonent bi lislaam ñaara ko taxawal mooy ñaq ak xaalis mooy ñaq ak ñuqi lu ngeen fi gis moo ko fi sax moo ko moo ko taxawal ah wajaay sa sabil foo fekk foo ko fekk bi am waalikum wa anfusikum donc bil mali wa na ñaar yooyu mooy doxal lislaam benn nga liggéeyal waa ju baax ji defal ko lu tax xolom sedd mu ñaanal la wala nga jox ko al ndax alal dafa man la nga koy jëfal ci sa yàpp yaram soo ko mënut woo niw foo niwloo fa man na loola loolu dafa mën lool ndax looluy taxawu lislaam ji moo koy dim moo moo koy jàppale bi mu ñaanee cët muy muy taw mu mel ni nag yónent bi mu wàccee loxoom rek taw bi tàmbali xam ngeen ab yónent ak li ko yàlla may di taw di taw di taw ba bés ba dellu si ah waaje ba amaat fu la benn waaye taxaw daan ne bi ah anas mi ko nett li moom moo ne man bi waa ji di wax yonent bi ñaanal maa ngi taxaw waaye daf ne yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam falam yanzil min min barihi xata raaytu sama yan yanxadiru ala lixiyatihi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi anas bi yonent bi wàccee loxoom rek laa seen ndox mi di wàcc asamaan di tuuru kon barkeem ñaanu la mel barkeem ñaanu la mel ndax yonent bi loola mu doon def ak loola waa ji sàkkoon ci moom ndax loola dafay jóge dem fekk ko aljanna déedéet aljanna aljana la fa soxla mu ñëw lépp ngi fii am na ñoo xam ne ñi góorlu ba àgg ci daraja boo xam ne àgg nañ ci daraja salaax salaaxiya luñ ñaan sunu borom defal leen ko te ñu bari yàgg nañoo gis fii nu daw dem ci nit ne ko ñaanal mu ñaan sunu borom dal di di wuñu njàqare ci saase loolu moom ñépp xam nañ ko ba mu ko defee yonent bi daal taxawaat daal ne allahumma aghizna ba muy wax naan xawaalina wala naa taw ba ne kerset nee nag fu mu joxañ ci asamaan si rek foofu daan ne kerset kon njàqare bu amee ci aw nit faw ñuy def tawazzul ci sunu borom di dem ci yàlla te ñiñ ko yaakaaree it faaw ñuy jaar ci ñoom waaye nag bu ñëpp dawee nag bu ñëpp dawee nag ku nekk toog toog fenn far dañuy fàtte ni am nañ benn occasion boo xam ne bii kat mi ngi ñuy mi ngi ñuy rëcc mooy ñaan ñaan yàlla def tawasul nag ci moom booy ñaani nag dangay ngay da wut loo doxale sa diggante ak ñaan ga ba mu dëgër kon waxuñ nag ay juróom mbiskit ñetti mbiskit di wër imaam ab sondeel di wër imaam déedéet déedéet mag ñi dañ daan def léeg-léeg ñu toog ba mu yàgg ñu bëgg sarax dem jënd aw fas dem jox ko kilifa xam ne dana ci liggéey loola dana leen jariñ jariñ lu bare bare bare bare fi ne bu fekkoon da ngay dem màkk di fa saraxi bëdd na da ngay rey gëléem moo gën waaye nag soo mënee loola neex mën nga ko def loola soo ñaanee sunu borom mën na am soo nekkee ci pexe wala nga nekkee ci tawat wala nangam man naa am loola nekk caabi joo xam ne soo ñaanee sunu borom dana la dimbale ci sa loolee ku ne xam na ne kon ñaan yàlla daf ko fee teg te bëgg it ñuy def tawasul ci moom ak nim ko tëralee ndax moom nekkut asamaan rek tëju bàyyi nu fii daf noo indilu lu yonent indil nu alquran indil ñu ñuy taxaw loolu soo xoolee nag ahlu sunna ni ñu waxee ni nii mooy sart li ñuy ñaane mooy ni ñu tawasule suñu borom loolu rek la weesul loolu suñ xoolee Usmaan ibnu Xunayf dafa silmaxa woon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana rajulan darir al basar ata nabi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy ñaan naan ko udu laa li an yuaafini ñëw ci yonent bi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla yàlla dindi sama gis bi ndax ngumba gi mu gumba xoolal loolu ah yonent bi ne ko in si'ta daawatu lak wa in ak aqartu zalik su la neexee ma ñaanal la yàlla dindi loolu kon yonent bi xamoon na ne moom lu mu ñaan suñu borom def ko waaye nag am na ci loo xam ne fekk jotut di aajo def ko def moo tax ma déggoon ñu ne eh, nit ku baax daa wax ne mais Cheikh Mamadul Basir daa wax ne nee na wilaaya day weesuwut xam yàlla di la wan loo xam ne doo ca man dara ndax kenn du def lu yàlla lu yàlla bëgg a dogal nga ne du fi amee nee na wilaaya loolu bés bu set a ngay xam lu bari yàlla da la koy wan Cheikh Mamadul Basir ridwanullahi alayhi mooy wayjur Cheikh Mamadul Muntaxa nee na loolu mooy wilaaya yàlla ñaare waliyu yii lu mu bëgg a def ci jamono dana ko def am na ñu jox daraje nag ñu ñaan waaye am na ñoo xam ne autorisé wu leen ñu ñaan ci mën nañ cee nett li benn boo xam ne ci diggante sunu benn baay bu baax muy sëñ Mor Mbay Siise ab nawet la woon jamonoy dënnu yi ci ñaan ak tawasul mu yónneelu ca sëñ Abdullahi Mbàkke doomu sëñ tubaal la woon ne ko gis naa ne yàlla may na la loo xam ne soo ko ñaanee soo tinoo lii di bëgg a wàcc du wàcc kon ñaan yàgg na fi mu ñaan ba mu xëy di ko ndokkeel kon ñaan noonu la mel lu am solo la kii moom silmaxa si ba ba yónnent bi ñaanalee ko rek loola daal di dañ biñ amee werante yu bari te imaam ibnu taymiya bind ci lu bari bi muy leeral tomb bii nii ndax sañees na ko ginnaaw yónnent bi mooy at tawassul bil mayit niñ koy waxee ñoom niñ koy bindee wala bi rajuli saalih koo xam ne kii nag nit ku baax la waaye nekkatu fi da daan ñaan mooy nangu waaye nekkatu fi fi mu ne lañ ca wax soo ko jàngee lépp lépp lépp daanaka dara leeru ci yàlla na yàlla jéggal maanaam munta taxaw ne loolu amut ñemewu ko taxaw ne loolu amut waaye daf ko layal ne kenn wartu sukkandiku ca lële ndax yonent bi da doon dund ci jamono soo xoolee wax jëlee foofu lay tëdd te loolu tamit nag soo ko xoolee bu fekkee jullit ñi ñi ngi ñaan ndax ñoom dañuy dañuy bañ bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ni kenn waratu koo def loolu rek mooy ci coow li fi nekk te asaluka bi nabiyika bi nabiyika man nga solo ne nga ne baawul istiaana man nga leen lu ko wax léegi atawajjahu ilayka nag bi nabiyika muhammadin mooy alwajaha wajahatu nabi sallallahu alayhi wa sallam kon bi xaqi wajhi nangam tey daal mel ni nee nañ ñu ne déedéet kenn warta wax bi xaqi nangam te parce que benn benn nit amul ak ci yàlla boo xam ne bi nangam ki nangam ak nangam nga ne bi jaay ñu ne déedéet bi jaay amut lii rek a waral coole waaye soo demee ci lépp danañ indi numéro ba ak fa mu nekk insha allah kon kooku yonit daf ne kon defal ñaari rakka allahumma inni asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammad nabi rahma loolu la waxoon yàlla daal di koy fajal yaa muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi xaajati haadihi ñoom nag bañ koy laaj dañ ne waa ji yonent bi mu ko ne dafa yat tawassala bi saati nabi walakin bi duaai nabi sallallahu alayhi wa sallam xool leen xool leen xool leen yooyu ay ni mutalaatiqayn lu jafee dindi saatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi encaissé alquranul karim sidna jibril di dikk bi nga xam ne moo am anwaaru nubuwa ñu ne de jëmmi muhammad yi waxuñ ñaanu yooyu lañ wax wa jaalani mubarakan aynama kunt kooku am dem na nekkatu fi te alxuraan daf ko daf ko daf ko indiwaat kon am na barab bu barkeelee la tax ñuy dem màkka yent bi wax ci xadis bu wér ne ku taxaw arafaat bii soo jàppatee ne bàkkaar des na ci yow sax jarul ngay ñëw jarul woon ngay ñëw màkk kon dañ lay jéggal nee na yàlla day taxaw ne ku lu ngeen ma ñaan ma may leen ci lan lañ def tawasul mooy ki demul màkk amu ko parce que paas bu nu paas dem ak barab ba loolu dafay joué kon ci yëf kon jamono bii nii ñu nekk ñi fi nekk di ay kilifa yu baax suñ jàppee ne bu ñaanee du am kon suñu ngëm yàlla dëgg dëgg dëgg wala suñu xam yàlla des na lu rek leen nañ leen sukkandiku jëf kon nag su sëriñ Muntaxa Basiir nañ leen jàng al alquranul karim te ñaan koy jullit bul ci génne sa bopp al qiraatul quran min jumlati amali salihat min jumlati wa jaisun an natawasala bi na kon alxuraan njàngum alxuraan jëf la jëf jooju nag mën nañ ci jëf ju baax la jëf ju baax ju man ju gën a kawe alxuraan amul kon mën nañ cee def tawasul bu ñu jàngee alxuraanul karim te léegi li tax kilifa baax mooy su ko diglee ñépp dañ koy def ñépp dañ koy def loolu moo tax saa bu jafe-jafe amee mu taxawal digganteem ak njabootu yonent bi sallallahu alayhi ba noppi am xolu bi yërmande jàngaleen alxuraan ñu noppi ne jàng nañ alxuraan yi tëj nañ ko mu dal di dem ci ab ruqam ne yàlla kat jaam ñaa ngi nii yittewuñ dara lu dul nga tàggale nag njàqare tawat ji wallahi alazim yàlla mën na caa def liñ ci bëgg insha allah teyit fi ne bari na nu mënoon a jeexitalee te fekk na ñaanu gaa yooyu rek lañu mel noonu rek la mënoon mënoon naa gën a métti fuuf ndax ñun ku ne xam na ne suñ dëkk yi bariwuñ ay jumtukaay yu bari yu nu mën a musal ci lu bare bare bare sedd bi nii rek bu yokkoon tey fi ne mara day taali amuñu sofaas amuñu ay jaget kiwir yoo xam nga ma ki nangam wala la muy jar munoo koo jënd lii yëpp yërmande sunu borom la kon yal noonu yàlla gën a dolli yërëm yal noonu yàlla gën a dolli yërëm moo tax loolu la wax lay sa tawasul bi saat annaw u saalis la al masru moom imaam ibnu taymi moo ko mu ne ñetteeli façon bi la mooy lan huwa tawassulu bi ay rajulin saalih loolu la wax léegi nag loola noo ko mën a jàngate yow mooy lii sëñ Muntaxa di digle te sëriñ Saaliwu daan ko digle sëriñ Sidi Maxtaar daan ko digle kilifa yu baax yi daan jàng leen alxuraan toggal berne ña koy jàng lan la ci jublu mooy dégloo suñu borom ba bu ko ñaanee suñu borom li mu bëgg mu def ko képp amul leneen amul leneen amul leneen ku ne xam ne alxuraan kenn du ko lekk kenn du ko naan mbirum suñu borom la moo ko war a yem kon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mayee kilifa yu baax su jamono demee fii su seen sunu sunu xel demee ci ñoom ñu am ak dalandi waaye bul woon ñoom tey jii kon danañ caalik kon dana métti ci nun lool kon xadis boobu noonu la deme noonu la ci ñi baax ñi wax euh, boo demee ci lisaanul arab lisaanul arab benn téere la nattee ay ay ay ay baat daf ne alshafaa kalaamu shafii lil malik fi xaajati yasaluhu li xayrihi kon nit sañ naa dem ñaanal nit nit sañ na ko léegi nag ki ngay def tawasul bu nekkee waa ju baax da cee rawati bu fekkee jëf ju baax da caa rawati bu fekkee alxuraan la wala tur yàlla lu mën di doon yooyu waaye bu nekkee xaal mooy la Moussa waxoon ba mu nekkee euh, Madiana ca wala maa tawajjaha tilqaa Madiana ja ba mu àggee toog situation yu métti lan la wax rabbi lima ansalta ilayya min xayrin faqir xoolul googu ñaan gu daw yaram rabbi lima ansalta ilayya min xayrin faqir amul dara génne ci pale kër muusa kër Moussa pale fa la fa la juddoo fa la yaroo ba toll noonu sunu borom nar koo def tarbiya ya ak mu jàng lu bari ci yàlla muy dem xamut fu mu jëm ba mu demee ba dugg Madyana dem ca fara ba ñu sàmmee mu xam ne fii léegi tey mu gis nit mu taxaw ne ko yàlla maa ngi nii lima ansalta ilayya min xayrin faqir yow ma dara maa ngi nii nii laa toll yàlla daal régler problème am ca saasi man loolu la wax xaalu maanaam nit ki situation bi mu nekk mu ñaane ci comme lu mel ni axis nii axis nii yaa safii wasilati xunaa wax xadan boobu suñ tubaab di wax nga xam ne bi mu nekkee ci biir eh, situation yu métti métti yàlla wallu ma wallu ma waxut nii min al fujjaari wal baxri raani man génne ma ci géej gi génne ma ci noon yi loolu mooy ñaan ci si ci xaal yàlla dafa loolu bu ci nit ki ñaanee ak baat yi ngay jëfandikoo dafa taw yaram soo ko xamee dafa taw yaram daan yàlla wallu ma loolu la ñuy wax tawasul gis nga jamono boobu dafa def tawasul ci xaal bi ndax xam na ne suñu borom moo ko teg moo tax léeg-léeg nit su ñàkkee su ñaanee yàlla dimbali ko waaye soo ñàkkee yow jàpp nga ne laaj rek yow daal doo ñaan yàlla mukk ci àdduna loolu day baaxul dañ ne nag allahuma inni asaluka wa atawassalu ilayka bi nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga baadal mawti riwaayaat yu bari xadis bi boo demee ahmad ibnu shayb shabib hisaam ad-Dustawaani Muaas ibnu Hizaam ak son ba ñoom ñëpp ku ci ne solo na lu bëri loo xam ne bu ñu ko doon leeral ji waxtu wi day jeex kon nee nañ Usmaan ibnu Hanayf bi am na benn waay bu dem ca Usmaan doon ko diis aajo mu mel ni dafa am jafe-jafe mu ne ko kaay ma wax la nu ñuy ñaane nee na mu ñëw mu ne ko indil jàppukaay bi mu jàpp ci misaal bu doon fii indil satala gi mu jàpp mu ne ko jullil ñaar rakka mu julli ñaar rakka mu ne ko waxal lii mu wax moom lam waxoon ca ba mu tawasul ci yonent daan ne ko demal ci Ousmane mu dem ci Ousmane Ousmane faj aajom léegi nag ñoom mu munuñ ko weddi munuñ koo dindi xam nga xadis dafay doon ne boo demee ci saxi sixaax yi fekk ko ca kon dindi gi moom mëneesu ko la ca des nag mooy sara sara moom lu nekk ay wax la rek <laughs> sara moom sara rek la ñun ñëpp nañ ko déggee rek lañ koy déggee kon mel na ni bari na lu ñuy def ci suñ jamono bii mu dagan lool nit gis jàpp ne loolu dagan te fekk dagan man noonu laa ko gisee xoolal wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatiimayni fil madina diggante xadir ak Moussa Moussa bi mu amee jafe-jafe bi metti xoolal wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana aboohuma saaliha seen baay dafa ne noonu ku baax ma jóg di ko defal waaye dem ba àgg ci fekk ab xale nga rey ko nga ne dama bëgg yàlla indil leen keneen fa mujj fan la wax daf ne wa ma faaltuhu an amri defuma ko woon sama coobare ndekete kon yàlla am na ñoo xam ne yàlla ngi ànd ak ñoom loolu nag mooy maayatullahi tabaraka wa taala maayatullahi soo demee ci risala aqida saxiixa bi ibnu baas bind def na ca benn benn tomb bu yaatoo yaatoo yaatu liñ tuddee maayatullahi kon ki ànd ak yàlla moom ñaare su ñaane suñu borom day jege yàlla lool maqaamam xurba lañ koy wax maqaama moo xam ne mooy jege yàlla ud'uuni astajib lakum Abdullah ibnu Adham dañ ko daan dàkkentale Aba Isaaq dafa ñëw ci marché Bazuray ñu ne ko yaa Aba Isaaq nee na ci alquran ud'uuni astajib lakum daaw na allah tabaraka wa taala naa walam yastajib lana mu ne xéexée kaay leen wax leen ñun daal ñaan nañ yàlla ba sonn yàlla wuyu wuñu nit ku baax la woon mu ne leen kaay leen ma wax leen fukki yëf a tax bu ngeen ñaanee yàlla du nangu ñu ne ko fukki yëf yooyu lu mu doon mu ne yéen a ngi nii xam ngeen yàlla bu wér joxu leen àq yàlla ñu ne mu ne yéen a ngi nii di jàng alquranul karim guddi ak bëccëg waaye du ngeen jëfee li alquran wax ñu ne ah wax nga dëgg de neexut ba neexut mu ne yéen a ngi nii yéen a ngi ne ci ummatu muhammad ngeen bokk ñu ne waaw mu ne lu tax du ngeen jëfe sunnas muhammad ñu ne tekk mu ne yéen a ngi nii ne ngeen da ngeen bëgg su ngeen faatoo du ngeen dugg sawara ñu ne waaw mu ne yéen ngeen sànni seen bopp te sawara bu yàgg ñu ne ko wax nga musiba di mu ne yéen a ngi nii ne ngeen su ngeen faatoo da ngeen dugg aljanna ñu ne waaw mu ne lu tax defu leen lu ngeen du leen dugal aljanna ñu ne ci mu ne yéen a ngi nii bés bu set nit faatu ma ne ko ci corona bi boo ñëwoon tey Sénégal wala feneen wala àdduna bés bu set ngeen denc ko ca armeel ya ñu ne waaw mu ne su ngeen dellu see da ngeen ne yàlla du leen rey mukk dangeen ngeen di def lu leen neex du ngeen ca waaru te dee ak waare képp lay jariñ ñu ne waaw mu ne yéen a ngi nii bés bu set ngeen sëgg ci derub nit di ko yàq te kenn ko ci ne yaa ngi am ayib ñu ne ah, wax dëgg yàlla mu toppee leen ko ba fukk ya mun leen lii a tax bu ngeen ñaanee yàlla du nangu kon dafa am loo xam ne day dox diggante nit ki ndekete kon ñaan dafa am yoon wun koy wutal kon nañ fexe ba di jëfandikoo sunna xam yàlla tey jox àq yàlla di jëfandikoo li nu alxuraan di wax te buñ dencetee nit ba nopp yonent bi daan wax ne uskuro maxaasina mawtaakum tudd leen lu rafete seen néew bii di ca wax lu rafet waaye daal doy na mu ko kon euh, Abdullah ibn Baas bi mu wax maa la daf ne allahu fawqa samawati bisaatihi mustawin ala arsihi yàllaa nga ci asamaan waaye ma nga ca arasam fan mu daan ne fa nataqahul kitaab maa yakun min najwa salaasa illa huwa rabiuhum fi ne boo dee yéeg sa moroom ngay wax ci nit wala ndàngam xamoo ne yàlla nga koy dégg yàlla nee na bu dee ñett maa leen di ñetteel kon lu mat a bàyyi xel waaye mun na kon lam yaxtalifu anna allaha ala arsihi aimatu salaf ayaanul umma abu nasr as-sajasi wax na ko sufyaan sawri malik mubaarak ahmad isaaqa fudayla hamad ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne sunu borom mi ngi ci asamaan su ma stawaa lalaas rek kon nag abu amr abu amr abdul bar daf ne ajmaa al ulamaa alsaxaaba wa taabiina alladina xumila anhum tawil xaaloo maa yakunu min najwa salaasatin ila warabihum huwa ala ars wa mu fi kulli makaan yàlla xam-xamam baa ngi fépp kon ñoom noonu lañ ko waxee moo tax ñu ne alxaailuna bi xululillahi tabaraka wa taala bayna xalqihi bi saatihi xaaloo xilaafa xaq ne nañ ñiy wax ne ñun yàlla dafa wàcc ci sun kaw maanaam yàlla day wàcc daal def jëmm jaxasoog nit ñi ne nañ wax nañ lu wuute ak li nga xam ne mooy dëgg kon su fekkoon xam yàlla la nag xam yàlla dana wàcc ci ab xol xam-xamu yàlla nit yi dana jege yàlla waaye yàllaa ko jege lépp nag ci yàlla la nekk ndax yàlla doone dafa ne ci biir àdduna doo ko wax doone wet gi fii la ko fare loolu kenn du ko wax dara génn sunu borom kon tawxiid boobu baax na ci lool mi ngi ko wax nag ci téere bu ñuy wax al aqidatu saxiixa wa maa yu wa maa yu daadda wa risala al maaiya soo demee da ko fekk kon nag udduuni astajib lakum yàlla moo ñaan leen ma may leen nañ leen koy wutal wasila soo demee ci téereb imaam ibnu qayyim al jawzi nee na faatixatul bii rek nee day saafara daf ne man talaba al gaayatal ola ku bëgg lu rëy jamono bi léegi jii ku bëgg yàlla yëkkati fi mbas mi wut nga lu rëy wal matlabul asma walam yatawasal ilayhi bil wasilati al muusila lahu wa ilayhi